doon ndaje tey ak presse bi tey pour yëgal mbooloo mi li xew au niveau du PDS ci biiru département Mbacké xam ngeen ni fan yi dafa am benn mouvement bu jóg am ku ko jiite naan moom mooy coordonnateur départemental bi PDS à Mbacké dañ koy ñaawlu parce que joxuñu cër mënoo nekk sa gox nga woo say ñoñ nga nga fàtte ni PDS am na fédération Mbacké PDS PDS am na ñu ko nekkal ci àll bi nga woote nga ne yow yaay coordonnateur loolu yabel lañ ko jàppee dañ koy ñaawlu beneen raison la. deuxième raison woote nañ ndaje bi tey di ñaawlu également l'attitude du député le président du groupe parlementaire libéral Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly ndax dafa wax ni la a démissionné du PDS su doon joxoon nañu cër balaa mu jël décision dafa waroon ñëw consulter la base loolu la def. balaa wér donc comme comme wax na ko si rajo yi nit ñi dëgg ko ñun dañuy gël at jàpp nañ ni nekkatul PDS beneen bi dañuy ñaawlu bi sénégalais di dund ñëpp xam nañ ni dëkk bi dafa metti du ceeb du diwlin du suukar du marché yéen yi ñu ngi nii mën nañu ko seede dëkk bi dafa metti ku añ reeratoo ndëkkeetoo loolu am dañ koo ñawlu di ñawlu également ñàkk sécurité ñàkk kaaraange kaaraange bu am ci biir dëkk dëkk bi di ci biir quartier yi di ci mbedd yi léegi nii gis ngeen am na ku agressé Mame Fatou Mbacké donc ñàkk kaaraange boo am ci biir réew mi dañ koy ñaawlu ñàkk kaaraange boo am également ci biir hôpitaux yi dañ ngeen lu xaw fan yi ay bébé di lakk ci biir yi ana responsabilité bi kan moo ko kan fan lañ situé c'est le président de la République moom mooy responsable le premier responsable. ñu ngi ñaawlu ñu ngi ñaawlu grève yi nga xam ne moom la élèves di dund instant yi élèves yi jàngatuñu lu ko waral dañoo signé accord avec les syndicats d'enseignants publié ko dans la presse dans les réseaux sociaux ñu wëlbatiku jalgati ko indi leneen enseignants yi mer dem grève suñu doom yi ñu ngi taxawal suñu mbedd bi te on est à quelques semaines des examens. C'est le président de la République Macky Sall c'est le c'est le responsable. Ah ah beneen bi ñun tey lañ gën a nekk ci PDS tey lañ gën a nekk ci PDS tey tey lañ gën a taxaw pour gagner les élections avec Wallu avec Yewwi dans le département de Mbacké waaw tey la gën a lañ gën a dogu pour gagner les élections au niveau département dañu leen di duma fii ñoom ñëpp benn boo ko yaakaar. Et on demande, nous demandons à ce que tous les départements du Sénégal font la même chose. ndaxte on se bat ñun dañuy xeex pour askan wi ndaxte nit ñi dañoo sonn su ñu amee majorité à l'Assemblée nationale on peut imposer une cohabitation et installer un gouvernement pour sauver le peuple. tënk tey coordination départementale bu mbake ñoom ñoo daje di constater euh, départu Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly waaye tamit di ko xamal ni comme démissionné na si parti bi war naa bàyyi siège bi mu yor au niveau de l'Assemblée nationale ñu ngi tamit ñaawlu sorti bi mu def keroog bi nga xam ni démissionné na ba ca suba sa pour di ŋàññi list départementale Dakar bi nga xam ni waa PDS ak ay partenaires politiques am ñoo ko ànd li ci topp ñu ngi ñaawlu di ŋàññ ay militants yoo xam ni dañuy woo wootewoo PDS nekk ci parti bi dajaloo ni dañoo tabb seen coordonnateur fii nii ci Touba ak Mbacké ak ci département bi yëpp loolu dañ koy rejeter en bloc ànduñu ci te PDS base bi ñoo fi daje tey di dàq lool donc li ci topp mooy ñun ñëpp ñu ngi ànd di wax ni ñu ngi des ci parti démocratique sénégalais te ñu ngi woo ñëpp pour que ñu maase doon benn pour que élection législatif yi ñu jëm ñu doon benn pour mun ko gagné nu mu gën a rafetee ak la grande alliance Yewwi Wallu di leen xamal ni rafetlu wuñu benn yoon parti démocratique sénégalais am ñoo xam ni dañu jóg def seeni réunion secrète ci seeni suufi ron lal woote un bonjour rek daal di fal seen bopp te kat yàlla xam na ni ñooñu dañuy consulter responsable yi di wax ak ñoom waaye loolu ba muy am dañoo wuy bañ wuyu seen i téléphone nekk ci seeni i lal seen i suufu ron lal tëju di waxtaanee mbir mi ndax lu tax nëbboo ak ñàkk gëm sa bopp ndax defe naa ni boo gëmee sa bopp am na yoo xam ni doo tëb rek di ko xumtoo say suufi lal ba mu neex la rek ngeen daal di jug fal seen bopp parti bi dafa am yoon te dafa am nu muy doxee même direk même bu fekkee ni direction parti bi moo joxe ndigal loolu te jàpp nañ ni président Karim Wade yëgu ci dara moo tax ma ni leen donte direction parti bi moo joxe ndigal loolu lan moo tax ñëw woo bépp responsable boo xam ne danga nekk ci département de Mbacké département de Mbacké bu ñu ko waxee dafa ëmb monde rural bi woo ñu ñu bokk ko waxtaanee ndax loo gis kat dañ koy waxtaanee ndax ñu trouver ci un consensus waaye nag loolu amul benn yoon ndax dañuy wax rek kuy kuy nëbbatu ak a sàcc da ngay fexe rek ba dugg sa suufiral londal ba def la ngay def soo defee la ngay def ba pare jéem a taxaw xool nan ngay yëkkatee sa loxo ni lii laa def waaye ñoom ca seen bopp xam nañu lii ñu def président ab Ablaye wadd ànd ci tey président Karim Wade ànd ci suba te ñun ñii tamit nga xam ne ñooy responsable yi nekk ci département bi ànduñu ci tey ànd na ci suba te suñu parti buggul loolu parti bi nag dañ ko war a bañ di dundee te di ko dundal dundal dañu la fal nga nekkal fi parti bi nekkal fi askan bi waaye fekk da nga bëgg a nekkal sa bopp rek loolu wax dëgg yàlla avancé wut parti bi gis naa ne nag yéen ñi xam yéen taxaw fi PDS yéen nag wax dëgg yàlla takku ngeen su fekkee am na lu jooy daal ay responsable la ñuy jooy au niveau de Sadio nag taxaw nañ parce que ñun boo léegi en tout lañ nekk parti bi ba tey booba booy la boobu maa ngi privé jusqu'à présent maa ngi sama carte membre ba fekk fa mag ba tey yàlla doog ñu dem ba teg sama loxo ma nekk coordinateur ba maa ngi njukkal ñoo ma woon ba teg ma ci yoon bi ba ma activité maa ci bëgg nag ñu jàppalante ba nga xam ne département bi danañ ko gàññi cinq dëkk yéen ngi may nag ci cadre jigéen ñi ci baatub jigéen ñi nga xamante ne ñoom parti bi rek a leen ñor ñuy toog di galeeru depuis ñaar fukki at ñuy toog di galeeru ci digg dëkk bii demuñu fenn soxlawuñu dara bëgguñu dara di ànd ak xale yi nga xamante ne ñoom lañ gisoon seeni kanam ca démb ñuy ànd ak ñoom defe naa ne kanami démb bu ngi nii PDS ba fi génnee kanam yi nga gis defe naa ne leneen lu jëm feneen ñorut ñii ñooy kanam yi ab parti nag soo ca nekkee ab parti soo ca nekkee sunu borom jox la ko te gënoo ca askan wax dangay jàpple nit ña dangay xam ne liñ la jox Sëriñ Tuubaa la ko jox ak yàlla ak borom parti bi yéene la jox la nga nawloo nit ña jàppale leen téye leen ñaar fukki at ñu nekk ci pedes jii di galeeru ku dem yaa dem ak sa bopp ku ñëw yaa ñëw ak sa bopp dara bàyyi ko wuñu fenn dara dikkuñu fenn kiñ fi jiital muy Seex Mbakke ñu ànd ak moom ñaar fukki at mu manq suñu deret yi ñu ànd moom ci lépp demut yóbbuñu xamut wax ñu naj ñu ci lépp nag ndax bu wax dikkee rek da ngay wax lépp mu jeex. bët yoo xamante ne kenn xàmmeewu leen kanam yoo xam ne kenn xàmmeewu leen. ñu ni ñooy coordonnateur loolu ñoom la concerné ñu ne dañuy def juste rek pour alerter parti bi xamal leen ni leen bu fekkente ni bëgg nañ jàmm fii ci Touba ak salaam Saliou Dieng ci jëmmi boppam nag génne loxoom ci biir Touba lépp moom a lax lax ji yëpp moom la Saliou Dieng lan bëgg mu génne loxoom ci biir Touba munul fexe fexe ba fal fi coordonnateur munul nekk tam am na ñoo xamante ni ñoo ko mérito ñoo ngi fi léegi nag nan xool ki xamante ni moo ko yeyoo ñu jox ko ko moo gën.